Yaram Cissé Didier Manik si maa ngi koy wax sànq Yacob euh, Yobat yi nee na Abdou Diallo qu'est-ce que a fait depuis onze ans à la tête du Sénégal à part voler l'argent du contribuable sénégalais salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah sëñ bi na ngeen def ñu ziar baax da ngay tey jëlloo ziar fa ñuy woowee hmm, maa ngi leen woowee Parcelles Dakar naka waa PA ñu ngi bu baax alhamdulilah j'espère que foofu gars yi commencé ñu manifester non ñu ngi fa ah, waajagul de. ah moo yéen tamit su nekkee waa Sikki ñoo ngi yëngal waa Mbour di yëngal waa Louga di yëngal yëngal moo mbaa Sénégal yëpp du ñu yëngal tamit. waaw fa lañ jëm nag incha allah. mais tamit est-ce que duñu xaar ba xam yëf yi fan la wanante mu jëkk yi gëtam ndax Ousmane Sonko nag. maanaam tey xëy na damaa bëgg am lu ma jàllale. ah aji ñi may mhm. dama leen bëgg a xamal ne. Mhm. l'islam bi muy taxaw. Mhm. xeexaluñu Seydina Mohamed. dañ doon xeex pour l'islam taxaw. Mhm. nan xam ne xeexu lañu Ousmane ko dañuy xeex pour Sénégal bu baax. effectivement. ñun ay sëñ yu vingt trois lan heure bi waroon nañoo fekk fu kawe mais tey ba tey ñu ngi day daw ci Sénégal bu baax tey ñun suñuy carte d'identité yi ñu am ana lan la ñuy jariñ mhm. saa bu ñu bëggee Sénégal baax dañ koy xeex. Mhm. loolu dafa metti suñ parents yi ñuy digal naan ñu ku génn da ngay dee nangam nangam nan xam ne suñ borom dee la njëkk a bind comme dund te dee na si défendre sa réew moo dee moo gën dee si leneen. Mhm. waaw ñun fas yéene ñoo en arrière benn pas. Mhm. wallahi billahi man mii su ma génnee di xeex Ousmane Sonko taxumaa jóg damay xeex ngir avenir Sénégal mhm. vingt-trois ans laa am xale bu ndaw laa mais maa ngi sóoraale samay njaboot li ma dund nii xalaatuma sama njaboot dund bu dee sama bakkan ko fekke nag alhamdulilah rek laa ciy teg te nag nan xam ne lépp loo xam ne lu ñuy buux la muy dem am par force am ku nekk ci kanam. Mhm. suñ bëgg-bëgg dafa tombé bëgg-bëgg Ousmane Sonko. Mhm. ñu jël ko jiital ko mais bu tegoon ci yoon beneen duñ ko dégg ba koy xam. Mhm. Macky Sall mii bu doon luñ soxla mu ngi ci moom. tey xeex bii ci moom lay nekk. li ñu bëgg ni chaque jour dañ koy ñaanal mu yàgg mais liñ bëgg nekkul ci moom. dañ ñaan ñett nag ñu naan dem leen liggéey ndax nguur gi fayu leen. ñun ñooy fay nguur gi ki ngay fay nag li nga bëgg la lay defal. Mhm. mais nag nan ngay fayee nit ki ba nopp naan ko mën laa bëgg nga defal ma li sama dépasse su ma la ko joxee ceeb bi ma bëgg nga may toggal. Mhm. gouvernement bi nag mënuñu ko toggal ñu dibi mu ñuy toggal ceeb bi ñebe buñ ci dund. waaw loolu laa am lu may jàllale. merci merci réew mi nag jàmm jàmm la ngeen ñaan. Eh, amiin yàlla na suñ borom def jàmm. amiin mais nag bu dee nii la nar a doxalee te ñàkk jàmm mooy tax mu baax yàlla buñ am jàmm feeg baaxul. d'accord barke Seydina Mohamed. merci merci jaajëf. merci kaddu yi vraiment kaddu yi daw daw na daw na yaram kaddu yi daw na yaram vraiment j'ai même les larmes aux yeux ndax moom euh, ni mu ko waxee xale bu xale bu 23 ans ne moom su su su nekkee manifester ci la bakk bakkanam wala des ngir Sénégal mën a baax ëllëg. moom dana ko fa bàyyi donc lii la itam ñi nga xamante ne vraiment ñoom ñuy suñu ay kilifa war nañu bàyyi xel ci genre déclaration yi ni mel c' pour juste dire que c' pas une cause politique euh, moo tax a jóg ndaw yi pas une cause personnelle pour défendre Ousmane Sonko waaye dañoo jàpp ne Sénégal fi mu nekk jamono ji war na faa weesu ah, nit am ay bëgg-bëgg ngir réew ñu koy jéem a faagaagal donc loolu itam vraiment ñoo ngi koy jaajëfal ci xalaat euh, a dugg en direct daal di bokk ci waxtaan bi voilà di ko jaajëfal bu baax baax di jaajëfal itam ñëpp ñi nga xamante ne aussi jamono ji ñoo ngi wéy di participer ci waxtaan wi jaare ko ci chat en direct bi Awa Ndaw Baara Jum ah, ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi commenté ñoo ngi leen di nuyu alhamdulilah foo ñuy woowee France France waaw ko ko kooku rëcc na di xaarandi keneen rek ba léegi ci 77 810 90 90 ngeen mën a dugg en direct daal di bokk euh, ci euh, ci waxtaan wi région nekk am na keneen ku ku ku yebbu leer ba jël salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ñu lay jaar. ñoo ngi sant yàlla bu baax foo ñu woowee. maa Kër Mbaye Fall. naka waa Kër Mbaye Fall. waaw. alhamdulilah. waaw ma bëgg na ma xalaat rek. xew-xew mhm. yi. waaw xam naa ne Macky Sall dama yaakaar ne dafa toog. Mhm. waaye ku gis tey détermination bi Sénégalais yi am dem ba mën a jàmm ak yeneen at yi mu fas yéene taxaw fexe moom ñu tax défendre benn projet. yaakaar naa ne bu am xel dara dara dara yaakaar naa ne yëpp jàpp nañu. dafa toog waxtaan. ndax tey jii Macky bu xamoon ni Sénégalais du Sonko Sonko moom moom lañ dox. mais li ñu proposé. mu doy ñu nga xam ne moom mooy moom mooy defar ëllëg tey jii dafa mel ne Macky Sall loolu euh, léegi nag comme moom bu la yoonu bopp ñun gisuñu suñu bopp am nañu léegi suñu avenir suñu ay jot ak suñu ay jot ba mbir mi ñu ñëw fekk situation bi ñu lool rek mhm. waaw li fi suñu maam yi mën ñu waajal bàyyi ñun gisuñu ni loolu lu baax Sénégal donc loolu te xam naa ne cette fois ci biñ jëm ah du ma ne dinañ dégg émission wala du ma dégg waaye pour kenn wax dañuy déglu ne yaakaar naa déglu parce que dañoo dem ba gëm ñu kat yéen kii bi di ne. allo allo sëñ bi allo. ma ne dañoo dem ba jaay. allo yéen kii bi di ne dañoo nekk ay bopp. allo sëñ bi su fekkee su fekkee yaa ngi may dégg. sëñ bi su fekkee yaa ngi may dégg su nekkee casque ngay wuyo wala nga def ko haut-parleur dañ ñaan nga dindi ko rek ngir rek dégg-dégg bi gën a mën a yem ndax jamono ji nag ni ngay waxee daal dafa dafay am grincement. waaw waaw maa ngi koy d'accord merci merci. merci donc di ñaan itam ñëpp ñi nga xamante vraiment dañuy woote ñu nekk dans des conditions yi nga xamante ne aussi dégg-dégg bi dina gën a a yemb ah, di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne aussi ñu ngi ñuy bàyyi xel nekk ci diaspora bi ah ñoo ne ah, soo leen bëggee woote rek da ngeen ñoom ñoo nekk ci diaspora mu ngeen woote ci numéro boobu mais ci whatsapp ngeen koy daal di defee salaamaaleykum waaleykum salaam bi na def bien sant bu baax. fu ñuy woowee. mais ngi woowee Fouta Gueye Fouta. yaa ngi wootee. Fouta Fouta. naka waa Fouta. waaw. ba ñëpp nga am jàmm. non amuñu jàmm de gars lu tax amoo leen jàmm. xanaa moo ñu sonal gars yi. Macky Sall moo leen. moo nu mu leen sonalee. allo. allo waaw. ma ne Macky Sall leen sonalee. rajo bi. daa daa bëgg dugg ci rajo bi quoi rajo bi. daa bëgg. dugg ci waaw di xaar keneen ci 77 810 90 90 ah di leen ñaan aussi soo leen di woote comme ni ma ko waxee sàng rek ngeen leen ndax ngeen nekk dans des conditions yi nga xamante ne vraiment euh, di ngeen mën a wax seen xalaat ci euh, jamono ji li nga xamante ne moom moom la ñuy gis noonu di ay image yu jugee ca Sigicoor ne ndaw yi nga xamante ne ñoom ñoo jàppal tànk Ousmane Sonko jamono yi dañoo dogu ne euh, Ousmane Sonko kenn du ko ñëw seen dëkk boobu leen nag daal koo jël si wala di ko fa jaay doole moo tax jamono ji sax moom am na ay manifesté yu jot a tàmbali foofu ci suba ba léegi salaamaaleykum salaamaaleykum. waaleykum salaam. bi na def. waaw ñoo sant alhamdulilah. foo ñuy woowee. maa ngi woowee Asalem. yaa woowee. Asalem Asalem. naka waa Asalem. ñu sant yàlla alhamdulilah. alhamdulilah bisimilah ci waxtaan bi. waaw déglu ngeen kàddu yëpp ci xibaar. te mhm. dañuy wax rek man ànd ak dal. am na solo kon lu jàmm lu nekk rek jàmm ko gën. Mhm. te nit ki loo mën ci am daa moo jàmm. Mhm. doo ko tal. Mhm. kon war nañoo bàyyi xel ne Sénégal bu amee jàmm ñun ñëpp. ñoo am jàmm. te jàmm amul tamit ñëpp ñoo ñàkk jàmm. te maa Abdou Aziz Sy Dabakh daa waxoon wax ju am solo. mu ngi boo nekkee ci géej gi wala gaal bi nee na buy ñaan te amul nit da ngay ñaan gaal bi nit mhm. gaal bi bu nittee te amul nit mais mhm. bu gaal bi nit ci fekk ëmb kon nit ñi war na noo def jàmm mhm. te xam ne nag jàmm ci la ñëpp xaj mu ñu nekk ci pouvoir wala ñu nekk ci opposition ndax bu ñu amul jàmm lépp lu ñu bëgg a doxal mën a doxal kon nit wax jàmm tey ñaan jàmm te nit ñi bu ma déggee nit wax naan day jaay bakkanam uhuh. te bakkan yàlla ñu la bind dalaa tere yow nga xaru mhm. xaru nag ay façon la mhm. ndax su ma déggee nit ñi ndaw ñi ñu bëri ñu wax ne dëkk bi dafa métti ñun ñëpp ay ndaw la man mii di wax ak yow ndaw laa mhm. waaye dëkk ni muy métti métti métti tey jii li ma am lu nekk nit yi yaa xay amul sa bopp yaakaaruma ci kenn opposition mais jàmm bu amul ñun suñu liggéey di dox kenn du sañu ñëw Sénégal sax ndax boo waxee ñun Sénégal daa bëri violence kon la ñuy ñaan jàmm. effectivement tey wax ni ñëpp nañu fexe jàmm am ci réew mi hmm. ndax mooy suñu njëriñ kat ñu ñaan ñu ñaan nag ñëpp koo xamante ni. Hmm. yaay nekk sooy ñu wax ne ñoom gëm nañ yàlla. <laughs> li mu wax. mais yàlla ngeen ne nguur moo koy def comme yàllaa koy jox nag jarul fuloo jarul xeex ku ko yàlla jox rek nga xam ni yow la ko yàlla jël. ñu <laughs> xam ni tamit parents ñun ñëpp ay responsable la ndax ndax nag sàmm bu nekk yàlla ñoo la laaj ëllëg ñu nga doon sàmm. <laughs> kon nag nañ fexe. suñu njaboot tamit parce que kenn ku nekk xam nga njaboot te njaboot bi tam dañ leen taxaw def ci liggéey ñu bañ kenn bañu suñu manifesté nga manifesté wu waaye nga dañu jël alal jàmm di def naka su dul noonu te xam ne loolu jëmul Sénégal anam kanam ñu góorgóorlu bu baax te ànd ak suñu xel mm-hmm. te xam ne soo naree rek soo waxee rek wala nga jëf di nga jot loo xamante ni da nga ko boo paree da nga ko a góorgóorlu rek ñu naan yàlla yàlla def Sénégal jàmm. amiin amiin defal ko mboolem réewu jullit yëpp. amiin ci barkeem bi sallallahu alayhi wa